après manifestation préélectorale 2011 di ma Mansour bu ma bàyyee ñiy manifester dëjjati Abdoulaye Wade palais ëllëg ku fi falu ñu dëjjati la pale état la ñu am amuñu ay caprice militant buntu pale kenn du fa manifester egguñu foofu Macky Sall du candidature ku ne sañ na ko xeex résistance ba loolu du am mais duñu cautionner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 réew mi doon na ko amal démb ak jëwriñam yi mu di conseil des ministres mu daal di fa